jambat lu bari li ci kër gi ak wax ju bari ji ci kër gi sonal borom kër gi loolu moo tax rek eh, ñu indi leen seen émission kër gi ngeen di ànd ak ñun saa su diggante altine eh, ba jëm alxames eh, ci kàttanu borom bi lu toll ci fukki waxtu ak benn jàpp fukki waxtu ak ñaar mbokk yeeg xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu ànd beeg de stv waaye di dellu di sant yàlla bu baax moom mi ñu may kattan ba ñu mën a noppalu niki àjjuma samedi dimanche altine ñu ñëw teewaat fas yéene wéyalewaat ba alxames àndandoo ko ak yéen lépp ci kattanu borom bi kon yaakaar naa ni euh, kooku la may loolu sant rek nga koy def ndax am na ñoo xamante ni xëy na bëgg nañ ko te mayu leen ko donte nag defuñu ko lu tax mu xañ leen ko waaye ñun ñi nga xamante ni ñun la fi bàyyeen di itam euh, defaluñu ko lu tax mu bàyyeen di ñu fi kon ñu ngi koy sant bu baax moom buur bi yàlla waaye di julli di sëlmal ci sangu-sang yëpp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sunu ñaari wayjur bu wér wér gërëm sunu wasila gërëm leen yéen ñi nga xamante ni saa su ne yéen ngi fësal seen cofeel jëmale ko ci ñun doore ko nag ci maladie di ci hôpitaux yi ak képp koo xamante ni yaa ngi wéyaale sa jàngoro ñu ñaanal la rek yàlla fëgg sa bopp nga delluwaat ci sa activité ñi caabi féete ginnaaw nekk ci bërëbu yarukaay yi mu metti lool xat lool tar lool euh, waaye itam bëgg gisanteeg seen njaboot mu di leen të yàlla mi nga xamante ni moo am liberté yàlla na yàlla jàppale leen ba ñu am seen liberté bopp waaye la leen fa dugaloon itam bañ leen fa dugalati euh, kii euh, di nuyu itam di ziar kilifa diine yëpp waaye du ñu fàtte itam ñi nga xamante ni ay way dawlu lañu ñu ñaanal leen yàlla àtte leen ci yërmandeem jéggal leen seen i bàkkaar tàbbal leen ci àjjana yi gën a kawe ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa kilifa diine yëpp ñu nuyu leen ziar leen ñaanal leen yàlla gudd fan ak wér kilifa aada itam naka noonu ñu masawu leen coono bu baax a baax ndokkeel leen waaye itam euh, ñaanal leen yàlla oyofal yéen bi nga xamante ni yenu nañu ko muy réew mi di nuyu ñëpp ñi nekk ci réew mi di leen ziar di leen ñaanal jàmm ak sutura waaye itam di nuyu waa bitim réew bu baax a baax di leen bàyyi xel di ñaan itam yàlla sàmm leen ba ñu mën a dellu siwaat ci réew mi waaye yàlla bu leen dara fëkk ba ñu jaare fa naax saay ndax bari na ci doomi Sénégal yoo xamante ni demoon nañu tey ay seeni mbokk dégg sax defatuñ ko ci ñoom kon képp ku fa nekk rek yal na yàlla jàmmal la may la jàmm sàmm la yiir la waaye la la tax a dem itam yàlla bu ki sa yaakaar tas benn yoon dellu santati buur bi yàlla bu baax a baax nag ci kàddu ki ñi nga xamante ni ñoom ñooy baykat yi ndax jamono bii gis ngeen Dakar euh, weekend bi ak euh, ni nga xamante ni mooy tey ji sax bi ñu xëyee taw bi ni fi mel loolu lépp nag dañ koy àndandoo sante ko yàlla ndax bu woon ab tawam tey jii Hmm, amaana tey dina métti ci ñun waaye itam bi mu ko indee itam am na ci ñoo xamante ni métti na ci ñoom waaye nag nañu sant yàlla bu baax a baax rek te xam ni am na ci loo xamante ni nattu lay doon ñi nga xamante ni ndox mi yàq na seen i kër ñii mu màbb seen i kër euh, ku ci mel ni Oustaz Pape Ndiaye nekk fële ci diwaanu Yoff ñoom ñëpp rek ñu ngi àndandoo di leen massawu coono di ñaan rek yàlla na yàlla wutal leen leneen loo xamante ni jafe yi taw bu ñëwatee incha allah dinañ ci mucc altine bu nekk dañuy ànd ak kenn koo xamante ni dañ koy tànn ci ñi nga xamante ni eh, ñoom ñooy def ñaan eh, fas yéene ànd ak moom ci biir émission bi nag lépp seq ko ak yéen ñi nga xamante ni yéenay jaare ci 88 628 69 69 00 221 33 841 09 31 ki ñu leen tànnal nag doon koo xamante ni min na kër gi waaye nag mi ngi wéy di yëngu ci li nga xamante ne mooy wàllu ñaan ca bërëb ba ko daan defee boobaak léegi xëy na toxuwul wala toxu na loolu yëpp dinañ ci xam dara euh, ci biir waxtaan wi waaye itam tolluwaayu ñaan itam ak li ko yàq ba tax kenn wóolootu ci kenn itam yooyu yëpp incha allahu taala dinañ ci waxtaan ak moom kon li may def rek mooy dama koy bàyyi mu nuyook mbokki téléspectateurs yi ba noppi bu ñu nuyoo ba noppi itam ñu daal di koy euh, rek euh, daal di dugg ci waxtaan wi ci tolluwaayu liggéey bi def bilan itam ginnaaw bi mu fi jaaree ak léegi yan résultat la def te xam ne nit ñi ci seen wàllu bopp ñu ngi toog jàkkaarloo ñun di ngi seetaan kenn ku ci nekk boo ci gisee lu la naqari di nga dugg ci biir émission bi noon noonu lay tëddee amul faral euh, kenn kon euh, Cheikh Mouhamadou Haali Diop maa ngi lay nuyu la bàyyi mbokk yi nga nuyu ak ñoom. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala asrafil mursalin sayyiduna Muhammad sayyidil mursalin sayidi xalqillaahi ibnu abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala mm. wala hawla wala quwata illa billahi alil azim ya himmata cheikhi uhduri lana bi haza almahdari wal taxti fii bi nasratin taati lana bi safari rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqu qawli ñu ngi nuyu mbokki 2STV yi mm-hmm. ñu ngi nuyu Adja Mbaye ak ñoom ñu toogal nii ñu ngi nuyu àddina yëpp di njëkkee ci nuyoo bi nag ñi nga xam ne ñooy sunuy sëriñ di waa Medina Baye radiyallahu anhu ki nga xam ne mooy ci mooy njiit li di papa Cheikh Tidiane ki nga xam ne mooy xalifa Maolana Cheikh Ibrahima Niass tey ci àddina fii ak ki nga xam ne mooy imam bu mag bi nga xam ne moo nekk ci jumaa ju mag gi ci dina Baye di ko jiitee di imam Cheikh yi euh, Aline Cissé di nuyu mboolem njabootam di nuyu nag mbooleem njabootu Baye gi ñi nga xam ne ñu ngi Medina ak ñu ngi ci àddina ak ñu ne ci Dakar ñu ne ci Dakar ñu ngi jiital ki nga xam ne mooy Baba Lamine ñu koy wax ci Mouhamadul Amin Ibrahima Niass di nuyu suñuy sëriñ di na Amane Ndiaye ak di nuyu suñuy waajur yi nekk Dakar Ndofane fële ci fa ñu cosaanoo di nuyu suñuy mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fii yëpp Mbayang bismillah d'accord euh, ñun tam ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di wax ne rek mbokk yi liñ baa ngi noonu euh, su ko defee rek euh, daañu mën a dugg ci biir émission bi mën a bokk ak ñun waxtaan Cheikh Mouhamadou Xaali nga jaaroon fii mhm. ci émission bi boobaak léegi xaw na def diir daanaka léegi mu mat at mhm. Euh, boobaak léegi nga nekk ci sa place di liggéey ngay liggéey yaa ngi fi nga nekkoon ba léegi. maa ngi fa ma nekkoon ba léegi. taxawoo déedéet. lu tax taxawoo. waaw parce que foofu laa foofu lañ mën ñu xamee. Mhm. waaw te maa ngi ñaan yàlla même bu ma bu ma bu ma bu ma amoon téeméeri kër it. Mhm. fekkee ne borom kër gi ñëwut soxla këram. Mhm. Ah, foofu laay continuer liggéey parce que fi ñu la xamee moom doo bëgg doo fa bëgg a damay gis léeg-léeg sëriñ yi dañuy changer ay ay dëkkuwaay lu bari. waaw ah, xëy na nit ñi bokkuñu. Mhm. am na ci ñoo xam ne euh, seen borom kër yi ñooy soxla seen i kër am na ñoo xam ne jubari moo leen di tax a mhm. waaw lu am na ci. ñoo mhm. xam ne jubadi def nañ foofu looxoor ma nga xam ne bëgg duñ kenn fekk leen fa mhm. te man incha allah la ci li may dund mhm. bëgg naa képp koo xam ne maa ngi jëflante ak yow boo ñëwee lañ lay wax lu leer la la ñuy jëflante lu leer la yàlla nag mooy ki nga xam ne lépp lu xew ci diggante bi moom moo koy dogal waaye sabab lu moom loolu lañu yàlla sant ko defee nag jàmm bi ñaan la am jàmm bi euh, waxtu fere ay fereem am xam-xamam am lépp loo xam ne lu jumtukaay yi ñu war a fajee la kooku dëgg yàlla même bu la laaj xaalis sax war ngaa génnee lu bare bari ci sa poos jox ko mhm. ndax la muy fere pour nga fekk ko fa kenn xamul nu muy toll xam bi muy gëstu di ko uti fu nekk ci àddina bi mhm. pour mën a dimbale jaam yàlla yi mhm. bu la laaju dara sax koo fekk kon nag kooku bu ñëwee ba janoog yow na la leer ne yow yaa koy jëriñ mais moom jëriñut la ndax li nga koy jox bu lim lay jox bu la ko joxee day jeex léegi da nga koy joxee léegi mu jeex te moom li nga koy jox incha allahu taala bu ci yàlla defee jàmm lu koy jëriñ la ba faw kon moo tax toujours kiy ñaan yàlla moom mooy jëriñ ki ki koy ñaanloo d' accord waaw loolu ñu xam ko. d' accord kii ñaan hmm. li ko waral mooy la mu lay jox da koy daal di taal léegi mu jeex. Hmm. waaye ci kàttanu yàlla la nga koy jox yow bu fekkente ni yàlla nangu na ko. Hmm. mën na koo gunge uh, ba. Uh, fi nga xamante ni mooy giiru dundam. Uh, topp ci ak njabootam. waaye da nga teel a dugg ci wàllu nit ki nga xamante ni daf lay ñaanal. bu fekkente ni ñaanal na la war ngaa yëkkati lu baree baree bare jox ko. te dama dégg ci jëw ñu ne Cheikh Mouhamadou Xaalis dafa bëgg xaalis. waaw loolu. est ce que du loolu loolu ngay jéem a leeral wala déedéet tooñkat yi ñooy wax loolu rek waaye dama lay wax ne leen nit ki Cheikh Mouhamadou Xaali kat uh-huh. la dama am ko laaj ko ñaar fukki junni uh-huh. wala ñeen fukk waaw moom laa lay wax rek xam nga nit ki boo bu lay ña boo koy ñaanal mm. mënul laa fay mënul laa fay mm-hmm. ndax xam-xam mm. nekk na loo xam ne mm. moo gën alal mm-hmm. ci anam bu nekk nag mm-hmm. ndax àllaaxira gi ñu jëm sax boo fay dem xam-xam bi nga am da nga koy yóbbaale mais alal ji fi nga koy bàyyi àllaaxira hmm. yéen jëm boo demee xam-xam bi nga am moom ngay war mu di la yóbbu hmm. mais alal ji yow moom moo lay war hmm. xam-xam boo ko amee moom moo lay sàmm alal boo ko amee yaa koy sàmm xam-xam boo ko amee boo koy dépensé day gën a yokku alal boo koy dépensé day wàññeeku kon xam-xam duñ ko emaleeg alal moo tax ma ne la ki lay indil alal yow nga ko jox xam-xam munu leen a weccoo dafa fekk ne mag ñi bu njëkk ba ñoom dañ naan laaj ay gétt nag Hmm. dañ daan laaj ay gétti fas dañ daan laaj ay jaam hmm. nit ak noppam dañ ko daan laaj dañ daan laaj nit ki ci weexal ci weexal rek hmm. da ngaa da daan bëgg benn secret dem ci àll ba liggéeyal sëriñ bi bi kii woon na fàtte ma ko sama ne papier yu yàgg na ay téeméeri at lañ ko doon ba tey yooyu képp koo xam ne maanaam soxlaa nga ci benn secret da ngay liggéeyal sunu sunu sunu wayjur wala sunu maam da nga koy liggéeyal lu mat at loolu la ñuy wax tarbiya wala. tarbiya. Mhm. ci wàllu secret pour barke nekk ci. Mhm. ndax ñaankat dafay laaj nga am barke. Mhm. day laaj nga am li nga xam ne mooy ijaaba. ijaaba day laaj nga am sell ak sell. day laaj li nga xam ne moom lañ la jox wala nga doon ko. nga liggéeyal ki la ko jox ba barke nekk ca. yii bu dajee ci yow boo ñaanee yàlla mën na laa diglu ndax yàlla wax naa la amut doom amut ndey amut baay amut mag amut rakk. mais am na ay xarit. te buntu xarit tëju ko ba tey. te képp koo xam ne yaa ngi koy ñaan di ko di ko jaam guddeeg bëccëg di ko di ko sàkkoo tudd guddeeg bëccëg soo ko ñaanee mën na la déglu mooy buntu buntu bi daal mooy buntu xarit bi waaw te ñun loolu ci lañ nekk dip ñu xàmmee ba tey ci ñaan yàlla ci ci jaamu yàlla lañ nekk ak ñaan yàlla ba loolu suñu way jur ci loolu lañ leen jimmi fekk leen ci ba ci la ñu aadama yi xamee ba dañ daan jógee Dakar di ñu fekki ba dëkk ba mhm. léegi nag bi ñu yàlla indee Dakar ñoom ñu forcé ñu ne foog ngeen dem ci télé yi ak rajo yi ndax ñun résultat yi ñuy gis ci yéen mhm. yombu pour ñu gis ko ndax xam-xam bi ñu doon dafa yàgg dafa yàgg dafa yàgg da dafa barke donc boo tarbiyoo nit euh, at liggéeyal ko at mhm. bu lay yeewee naka la lay yeewee di la jox di la jox secret yi waaw euh, mën mën nga ñu ci may waaw parce que bu fekkee ne te amul waajur amul amul doom amul doom amul surga waaw donn am na ci ndono lenn li ci des yow góor góorgóorlu moo la koy may. Mm. mooy nga am pasteef am na ci yenn secret yoo xam ne sa papa mën na ko am mën na ko ñàkk. Mm-hmm. il faut boo ko soxlaa ci sëriñ bi faw nga buqi alal jox ko. Mm-hmm. wa ko. Mm-hmm. loolu mooy tarbiyu bi. soo demee nag ba nga xam ne la nga xam ne liggéeyal nga ko ba xolam sedd. mu ëkkati secret yam lay yëkkati jox la ko. loolu la loo ci defal nit da koy gis. ndax barke moo ca nekk. moo tax ñu ne barke du jëmm waaye fu mu tàbbi ñu xam ko. ndax boo gisee juri kër yi barke moo ci nekk. xaj yi ak bëy yi ak xar yi ak ak muus yi barke néewut ci mhm. ndax munoo gis seen gétt lu bëri te kenn du ci rey kenn du ci lekk te xar yi foo toll di leen gis ñu leen rey di leen lekk di leen jaay te foo gis toll gis seen gétt mhm. barkee ca nekk mhm. mbay mi ñëpp bayuñ te bayuñ at mi bayuñu weer yëpp te lu nit lekk luñ bayee nga ca barkee ca nekk commerce bi barke ji nekk moo tax ñu ne barke du jëm te lu moo tax lu mu tàbbi ñu xam ko kon nag looloo tax seen sëriñ yi pour bu ñu demee ba gërëm leen. ñu xeewi leen ñu am barke. <laughs> am na ki tarbi boo xam ne du pour sekkere kese da ngay tarbi yu nit ki ngir yàlla. <laughs> bu demee ba def la muy def ci yow. <laughs> barke da ngay nekk jëm jëmi barke. maanaam nga liggéeyal ku yàlla gërëm. da liggéeyal ku yàlla gërëm ba mu gërëm la. yow da ngay ngërëmal yàlla jooju di nga ci am. da ngay nekk jëmi barke ma ne la. Mm-hmm. ba yow ku la laal barke ku la xool barke ku ku ku ku ku la liggéeyal barke. Mm-hmm. bu boobaa jëmi barke mooy nekk ci yow. ba fépp foo nekk loo loo ñaan day day am. d'accord voilà képp koo xamante ni liggéeyal na la wala mu seddal sa xol. Mm-hmm. xolam day sedd. su ma la déggee Cheikh Mouhamadou Xaali foofu la jaar ba tax mu am xam-xam bi nga xamante ni moom lay liggéeyee. waaw xam-xam bi ñun doon nañ ko. parce mm-hmm. que ngërmaande lañ ci lañ ngërmaande lañ ko doonee nag. Mm-hmm. ñi may déglu nekk euh, Ndofane nekk samay samay mbokk. xam nañ li may wax nii. sama waajur dafa ma gërëm. dafa ma gërëm ëkkati mboolem li nga xam ne mooy ay xam-xamam. ne lii Cheikh Mouhamadou Xaali Diop laa ko laa ko jébbal mm-hmm. ci ngërmande miraas la wu ma ko kenn mayu ma ko kenn jaay la wu ma ko kenn si Aliou Cissé ma ca Ndofane bu déggee lii dana xam li may wax mm-hmm. moom moo doon miraas sama wajur góor moom ak ak Baye Dramé mm-hmm. ca ñoom bi ñëwee lire lettre bi ñu xam ne lii sama wajur moo ko bind ñu ëkkati téere yi jébbal ma ko tal tëj tëj tëj dafa am lu ma ko defal lu tax mu gërëm ma ba jox ma ko moo tax man tiituma dara dégg nga am naa ngërëmal wajur d'accord dégg nga bu ko defee nag xam-xam boobu mhm. lépp loo xam ne defal naa ko ci nit mhm. mu gaaw muy yéex day gis résultat mhm. parce que barke ma yàlla du maye di nangu yàlla jomm na loolu bu ko defee nag euh, bu ko defee xam-xam boobu bi ñu ko donnee terewut dañoo gëstu dem nañ ci Mauritanie dem nañ fu nekk ci ci ci ci biir Sénégal dem wëri at di gën a gëstuwaat ci wàllu xam-xam ndax yonent bi yàlla ñaanloo ko mm, alal sallallahu alayhi wa sallam pour mun ñaan ci ndollal li mu ko ñaanloo mooy Mm-hmm. na nga ñaan ndollal ci xam-xam mm-hmm. te yonent bi lépp lu waaye di xam moo xam nga yëg ko wala nga ñàkk ko yëg ci moom lay ballee kooku nag moom la yàlla wax ne ko waxul rabbi sidni ilman dellu wax ne yàlla yàlla nga ma dolli xam-xam mm-hmm. kon ñun waru ñoo mën a doyloo suñu xam-xam dañoo toujours dañuy gëstu te gëstu ndax xam-xam du doy mukk ndax yun dafa wax ne minal mahdi ilal ahadi fi ngay nekkee ci laytaay ak fi ñu lay tegee ci laat pour suuli la mm. foofu bàyyi jàng xaju fi bàyyi jàng xaju fi bàyyi jàng fi ñu lay eh, defalee laytaay comme ni nga ko waxee. Mhm. ak fi ñu lay tegee ci laat bàyyi jàng xaju fi. Mhm. mais est-ce que foofu. Mhm. njublang xaj na fa. parce que léegi wàllu sëriñ yàqu na. mi ngi yàqu. wàllu ñaan mi ngi yàqu ndax kenn wóolatul kenn. kenn gëmatul kenn. lan moo waral loolu yéen la wala lan la. waaw mbay loolu du yàqu. Mm. wàllu ñaan du yàqu mukk. parce que képp ku bëgg a lu yàlla defar. Mm. yow yaay yàqu. yàlla moo wax adduuni astajib lakum. Mm-hmm. ñaan leen ma ma may leen. Mhm. kon jaam yi duñ dëñ di ñaan. Mhm. duñ dëñ di ñaan lu ji. Mhm. ndax leen lu nekk am na ay niveau yu ca ku ca toll. mais des fois nga dajeeg nit mu réeral la laaj la sa xaalis jox ma nangam ak nangam doo gis dara. waaw lépp loo gis ci àddina. am na ñu koy mbuboo. am na ñoo xam ne lañ nekk ba bis penc duñ ca jóg. mooy njub gi leen yàlla teg. dégg nga. te yàlla moo ne na ngeen ma ñaan ma may leen. bu mhm. isaa sa alaka ibaadi anni fa inni qaribun la laa la sama jaam yi laajee ne mhm. bi ne adduhaa u silaawul mu'min ñaan mooy nganeel jullit kon moo tax ñaan yàlla moo ko digle te it yonent bi day wax ne Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu di ko di ko wax ne di leen ñaanee yàlla ci mu ngeen musta mooy yàlla mhm. ndax man sa làmmiñ mu musuma cee mooy yàlla déedéet lottu naa ci sama làmmiñ musoo cee mooy yàlla kon fu ma la ñaanalee mën naa nangu soo ma ñaanalee mën na nangu loolu moo waral nit kii di jóg di seeti koo xam ne wóor na ko ne am na ci moom yaakaar te kii nii ku sell la kuy kuy tudd yàlla la suba angoon gu dégg bëccëg te ku yàlla may ay secret la. te ku ragal yàlla la ndax yàlla moo ci alquran afala yatadabbaruuna alquran mhm. ko settantal wala seen xol yi dañ ko kaste looloo tax suñu mag ñi daan gëstu alquran bi di ko lëñbët di ko lëñbët ba génn ci ay secret yoo xamante ne nii mhm. mën na tukkal àddina mhm. génn ci ay secret yoo xam ne def gis la téeméeri nit bu ñu ñëwee mën nga ñaanal quatre-vingt-dix quatre mm. yàlla nangu mais am mën nga ñaanal yàlla bañ voilà foofu laa bëgg ñëw parce que suñu émission bi passé dalal mm. naa fi kenn euh, Baye Niass Tandian ba koy nuyu bu baax a baax euh, mm. seen wëllëre la seen mbokk la te it waajuram ci loolu la nekkoon ci loolu lay gëstu di ci def ay ñaan mm-hmm. yàlla di ko ci may ay résultats mm-hmm. mais wax nga ko sànq mën nga ñaanal cent personnes mm-hmm. quatre-vingt-dix yëpp gis résultat mais dix yi ci des bañ a gis résultat bu nag dañuy wax euh, mënul mhm. wala diw lekk na sama xaalis mhm. te li ma ñaanal gisuma ko mhm. euh, euh, lan ngay wax ci loolu waaw sabab lu mënul ñàkk ci jàmm te kum leeroon ne fii ngay fajoo doo doo wëri kenn da dem directement foofu nga faju ji foofu docteur yi nga xam ne ñoom lañ jox ñi spécialiste dañ jox leen seen seen seen lijaasa dañuy tëral malade ñaata nit moo fi ñu fay génnee di fa dee ñaata nit ñoo génne ci biir hôpital yi di fa dee wala nga jóge fii ci réew mi dem bitim réew faju ji dem faju ji ndax ñi fii jéem nañ ba sonn mhm. wala ñu la indi indiwaat koor bi fii te wuñ ko kenn koy faju ji bitim réew ndeysaan yàlla yàlla musal ñëpp na misaal lay joxe rek misaal waaw waaw mais nag mhm. loolu tekkiwul jaami kat jaam yàlla yi ñaan munuñ ñaan mën nañ ñaan am nañ xam-xam seen xam-xam wér na mhm. mais nag du tekki du du du ma fakkal lay ñi nga xam ne dañoo juba di di def naka sulu noonu mais nag buñ tax ñu tënk ñëpp ne dañoo jubadi déedéet mhm. ñaan yàlla mu ngi am ba léegi secret yu wér mu ngi am ba léegi nit ñu jub ñi ñu ngi am ba léegi mais dangay ñaan yàlla nangu léeg-léeg nga ñaan parfois nga ñaan yàlla nangu parfois nga ñaan yàlla du nangu wala mu nangoo ko leneen lu bokkul woon ak la nga doon ñaan waaw way laa sax mën naa mm. mu na ko nangoo leneen la ko dencal ba alaxira mu nangul la ko foofu mm-hmm. mais yàlla ci ci ci ci dayoom mm. man am naa yaqin ne maanaam euh, maanaam kii na rëy na mm-hmm. jaamam di ko tàllal loxoom mm-hmm. di ko ñaan mu koy delloo loxo kese benn mu nangul la ko ci li nga bëgg wala mu nangul la mu am ay wula naroon a dikkal mu fanqal la ko ci wa ilaa mu am loo doon ñaan leneen mu may la ko ci côté boobu xam ne moo gën ci yow ndax xasaa antu yi boo seen wa xayrun lak wa sarun lakum wa xasaa antu yi boo seen ah, wa sarun lakum parce que am na leen loo xam ne yaa ngi koy sàkku fekk loolu ba gënu ci yow gënul ci yow yàlla fanqalee la ko sa ñaan ñaan ga wala mu dencal la ko ba àllaaxira mu jox la ko ndeysaan yàlla na yàlla jox leen ko fii parce que mm-hmm. sénégalais moom joni joni la bëgg mm-hmm. euh, donc euh, mbokk ngi ci ligne bi dañu koy daal di jël mbokk asalaamaaleykum sax mbay waaw sama sëriñ nax nu kazalik tur bi naka laa fooy wootee Abdoulaye Seck ma Abdoulaye Seck allo allo bàyyi laat Abdoulaye Seck Abdoulaye Seck Ah, Abdou Aziz fan ngay woote. Nouakchott Nouakchott. Nouakchott ay ci Abdou Aziz yow rek la ñuy déglu Seck. waaw waa ji nga woo invité woon ko rek euh, maa ngi koy suivre. waaw. may ndaw si woote woon yaa ngi dégg moom du ko liggéeyloo yaa ngi dégg. waaw du ko liggéeyal gisu ko. waaw. aussi am na si droit. waaw. waaw parce que bu fekkee da nga wax ne da ngay da ngay liggéey problème marabu kaas mi ngay fay. te mm-hmm. dèjà mu leer na yow mii da ngay ñaan lool te li ngay ñaan bu wóorul. yàlla nangul la comme déet. Hmm. ki la jox ki la jox alalam nag. Hmm. di la ñaanamal ñam ko yaa ngi ne nga may jox. Hmm. bu fekkee gisuñu si taa wax am na droit taxaw ni kat franchement li nga ma ñaanal gisuma. li ma gisuma ko am na ci droit. am na ci droit d' accord. Eh loolu am na sol solo Abdou Aziz. merce merci beaucoup Abdou Aziz Seck depuis Nouakchott dellu su waat na ci li nga xamante ni moom laa doon wax mhm. nit ki am na droit nga ñaanal ko mu taxaw kat ne la ah kii de ñaanal na ma gisuma ko mhm. jubluwu ci yàq jubluwu ci dara mais euh, loolu sax dama yaakaar ni dafay dëgëral li nga xamante ni moom la kii ñaan di wax mhm. ndax damay ñaan rek mën ngaa ñaan nag tey yàlla nangu mën ngaa ñaan yàlla bañ a nangu wala mu nangoo ko leneen am na ci droit mais euh, ni mu ko wax lu tax nga xam ne da ngay ñaan ba pare di tàllal yàlla loxo di ko ñaan ci nit ki ba pare di wëlbatiku di ko laaj xaalis ba pare di ci dogu ne ko nangam li dina am lu tax li des fois ñi euh, ñaan di def loolu waaw dogu bi moom warul waaye li may la ma xamal mooy hmm. nit ki waxtu woo xamee ne ñëw nga di ko ñaanloo hmm. lu kooku am na droit laaj la lu ko neex hmm. parce que la tax nga romb ñëpp dem di ko ñaanloo moom moom moo war a moo tax loolu ndax am na loo gis ci moom am na loo yaakaar ci moom Mhm. loolu yaakaaroo ko ci keneen te kooku yi la muy fere mhm. pour toog nit ñi fekk ko fa mhm. loolu dafa bari te xamoo lu mu toll waxuma la dara mais xam-xam bi loolu mënoo ko koo fay ba mu koy jàng ba mu koy jàng ak temps bi mu ci def doon donga daara mënoo ko koo fay te képp koo xam ne ba nga juddoo sa baay yoon moom la jaaralee ba nga demee tey ba ba jëriñu ca ba bëgg caa jëriñ loolu noonu jamono bu nekk nit ñaa ngi la cay ut si nga cay yaakaar dara waaw kon nag waxuma laak nag xam-xam bi nga xam ne kooku mooy njëkk te mooy mujj d' accord waaw euh, Cheikh Mouhamadou Xaali rafet mm-hmm. njort mm-hmm. est ce que dina tax yàlla gaawal ñaan parce que des fois damay faral di dégg ñu ne bu la nit kii ñaanal mm-hmm. même bu tibbee suuf euh, tifli ca jox la gëm gën koy gëm xëy na peut-être ne xam ni lii yàlla mën na cee jaaral defar say mbir loolu dafay tax mu gaaw mais di sikki sàkk ah est-ce que li ma jox kii na ak kii dégg naa ñaankat yi di wax ne léeg mën naa tax ba li ngay ñaan du nangu est-ce que loolu lu la wala déet waaw loolu addis la yonent yeneen ñaari jikko gi dara gënu leen a suufee mhm. mooy husnu sanni fillaahi husnu sanni fi ibaadillaahi mhm. rafet njortu ci ci yàlla mhm. ak rafet njortu ci jaami yàlla yi rawatina nag ki lay ñaanal te yàlla dafa wax ne ñaan leen ma te woo am kóolute ne ñaan gi dana nangu dégg nga yow mi ñaanal nit nga war a am kóolute ne ki may li ma waaju ñaanal dana nangu mhm. mais dafa am ñoo xam ne parfois dañuy ñëw pour seet si am na ñoo xam ne dañuy pour fenloo si la mhm. ñooñu nag bu ñu ñëwee parfois pour ñu gis mën naa bañ a yomb mhm. léegi nag ñaari jikko yi nga xam ne nag moo gën a bon xaaral ñu dimbali kii ci ligne bi ñu ñëw ci ñaari jikko yi gën a bon mbokk allo allo salaamaaleykum aleykum salaam sëñ bi tur bi naka laa fooy wootee ah maa ngi maa ngi tudd Oumar Soumaré maa ngi wootee Paris Soumaré depuis waaw ay ca rek la ñuy déglu waaw man ne man moo gën a jaaxal est-ce nit mën na ñaanal nit. est-ce que. nit mën na ñaanal nit. est-ce que nit mën na ñaanal nit. waaw. waaw laaj laaj la boo xamante ni dinaa la ko laajal léegi incha allah. ok merci beaucoup. merci beaucoup. voilà moom Paris la euh, wootee nee na ndax nit euh. mun na ñaanal nit waaw wax naa ko léegi yonent bi yàlla na leen ñaanal ci lam yàlla ci lam yi la mooy yàlla dégg naa ko wax waaw euh, di wax ne gémmiñ goo mus la mooy yàlla la ci ñaanal mu nangu mun na nangu te loo muus muus doo àbb gémmiñu jàmbur mooy ci yàlla yàlla mënul nekk mook dem ci réew moo musula dem mm-hmm. ñoo yem ñoo yem loo fa ñaan yàlla na la ko nangu mm-hmm. te boo fa na laa jégal te nitu yu bari dañ daan jógee réew ak ngir ñaani yàlla ngir ñaani yàlla loolu waxuma du sama wax dama ko damay koy faral di déglu sunu wayjur woowu di sunu ndijaay El Hadj Ibrahima Sakho mhm. njabootam ñoom xaasim ak euh, ñëpp maa ngi leen di nuyu ak ñoom Papa Tafsir Sakho damay faral di déglu seen i kaset mu faral di wax loolu mhm. ndax nit mun na ñaanal nit loolu nga tontu ko ci Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu sunu sëriñ mm. daf daan dugg daf daan dugguloo nit xalwa sëñ Assane asan Assane Deme képp ko xam njaboot ak bàyyi gi da nga leen da nga ko xam bàyyi daf ko daan duggal dugguloo xalwa pour mu dugal ko xalwa di ko xalwa di ko seetal ay mbiram te bàyyi dayoom ci yàlla kenn xamu ko mhm. waxuma laa nag ay ay sëñ Tuubaa ay ay alaaji ma ridwaanulaahi alayhim mhm. kon ñaanal nit mën na nekk mhm. loolu laa koy tontu nit ki su fekkee ne am nga problème dégg nga yow xamoo fooy jaar ba problème boobu faju mhm. te am na loo xamante ne nii loxo yow jàngoo ko te moom jàng na ko jàngoo ko moom jàng na ko mhm. moom day sax di tudd yàlla suba ngoon guddeeg bëccëg am na dayoo yoo xam ne toll na fa te yow tolloo fa mhm. te wa foo ko kulli si ilmin alimul yàlla wax xam-xam boo gis xam-xam féeteenu ko kaw olof mooy wax ne lu reen jam-jam reen jam ronu na ko moo tax yi nag su fekkee ne xam-xam mu ne xam-xam féete na ko kaw mhm. kon yow am na loo xam ne xamoo ko àggoo fa mënoo ko mhm. foofu nga seeti ko ku ko fa yegg loolu ci zahir bi nii rek mhm. mën naa la ko misaalal ci li nga xam ne yaa ngi koy soxla tey ci àddina bëgg faa bëgg koo def te mënoo ko defal sa bopp foofu nga uti ko lu ko defal euh, li tax ñu waa euh, xaw ma ndax euh, dañ ko war a dëggal ndax ñaan mun naa am am déet parce que man téléspectateurs yi laa fi toogal mais yàq nit di mu gaawee xam nga yàq ñaan la gi xam nañ nit ñi xam nañ ne korte fi lañ ko fekk mhm. nit ñi xam nañ ne lu nit mu ngi ci bërëb sàngam dinaa ko fa déjjiti fi lañ ko fekk mhm. naawtal nit mu dem dootul ñëwit fi lañ ko fekk mhm. kon bu ñu nee ñaanal nit lu baax boo ko xoolee foofu xëy na mën ngaa gëm ne nit mën naa ñaanal nit waaw loolu moom mais Cheikh Mouhamadou Xaali ñu ma ñëw tuuti ci yow est-ce que euh, yaa ngi am ay résultats alhamdulilah ñu ngi am ay résultats te loolu ñi nga xam ne ñu ngi ñëw ca kër ga xam nañ ci dara ndax dama wax naa la ko léegi ñun dañoo liggéeyal suñu way jur ba mu gërëm ñu jox ñu ay secret yu wér yoo xam ne buñ jaaxlee ñun ci suñu bopp dañ koy defal suñu bopp di ci gis résultat suñu njaboot bu ñu gisee ci ñoom jaaxle dañ leen koy defal di ci gis résultat jaami yàlla yi daw dañuy ut si dañ leen koy defal ñu ci gis résultat muy ci wàllu ku ku bëgg a am doom du ñëpp du ñëpp ay gis résultat non mënul nekk yàlla mayewul lépp yàlla mayewut lépp moo tax mm-hmm. wax naa la ko boo ñaanalee téeméeri nit mm-hmm. am na ci ñoo fukki nit yoo xam ne mën nañoo bañ a gis wala ñu seen gis-gis yéex mm-hmm. ndax nit ñi tolloowuñ yaram yi ni muy tilimee tolloowut nit ñi nit ñi tilimee tolloowut ndax yaram mën na am cat mën na am rab mën na am liggéey yaram bi nit ki naa nekk ci àddina di foye boppam ci wàllu jigéen ñi ba yaramam tilim yii nag su fekkee ne dal na la Ah, te ni mu leen dalee bokkut mu ngi mel ni yére yi ngay fóot rek ni ñu tilimee bokkut mhm. mën nga tili xoj yére rek léeg-léeg benn bi ci ordre sawel bi waaw ndax tilimaay bi dafa ëpp mhm. moo tax ñii parfois nga defal leen ñu yéex gis man mhm. nag képp koo xam ne incha allahu taala ñëw nga fa li ci ëpp yaa ngi am résultat li ci ëpp ci ñi may ñëw li nga am résultat mais du ñëpp déedéet mënul nekk ñëpp mënul nekk ñëpp mooy li ma la wax nii rek voilà mais ñi ci ëpp laa wax ñu ngi am résultat d'accord dégg bu baax ndax wa amma bi ni'mati mhm. yàlla uh-huh. ngi sant bi nga mm. euh, yaa bu baax waaw sant moom ala kulli a xew dafa war ci jàmm ndax bind bi la yàlla bind nekk nit sax da nga ko war a sant maanaam dina ma waral image yi bi nga fi jëkkee jaar mbokk nga ci ligne bi ñu jël ko allo <laughs> allo waaw sëñ sëñ bi ñu ngi lay ziar da nga da a waaw. ay ci yow rek lañuy ñuy déglu. waaw ñu ngi leen di leen bu baax. waaw dama bëggoon kilifa googu ma lay jox numéro téléphone am. am. waaw. waaw léegi da ngay coupé ma jox leen ko léegi incha allahu taala. waaw jërëjëf. voilà merci beaucoup. wax na dëgg sax émission baa ngi dem numéro am donc 77 la 441 16 17 77 441 16 17. wala nga def 70 841 61 90 numéro yaa ngi noonu ci suuf écran bi 70 841 61 90 mooy numéro Cheikh Mouhamadou Khali Diop wala ma bàyyi ko mu baamtul ñu itam adresse bi pour képp koo xamante ni bëgg na. fa ñëw waaw adresse bi cité Fadiala. Mhm. ci biir Yoss Doré bi. Mhm. boo jugee rond-point Case bi da nga ni ku jëm golf mhm. boo ñëwee ba ci biir Yoss bi nga tourné sa sa droite sa léegi boo demee nga continuer tuuti rek. am na kër gu nekk foofu jàkkaarloog ministre métallique mhm. sama tableau bi maa foofu ci buntu kër gi mhm. dégg mu ngi am salon ci buntu kër gi mhm. numéro 141 la dëkkee waaw képp kuy ñëw rek boo ñëwee ba ci biir doole bi ñu bi ni ma bi boo fa ñëwee rek da jàdd à droite jàpp jàdd su fekkee da nga golf côté golf lay doon donc doxee tuuti rek ba ci menuisier métallique bi waaw mu ngi cent quarante la cent quarante et waaw léegi nag kër gi ak si suuf kër gi am na salon mhm. maa ngi dëkkee ci deuxième bi deuxième bi waaw képp koo xam ne soxla nañu rek ba ñëwee war nañu day ñëw ba foofu koo xam ne si Cheikh Mahamadou Khalil Diop nga jëm mhm. boo ñëwee ba foofu mhm. woo ci biir doore bi rek nga woote bu fekkee ne maanaam sa crédit jeex na wala amoo téléphone nga tourné ci sa ndeyjoor boo jógee rond point cas boo ñëwee ba ci bureau de rebe boo jeexalee bureau de rebe tourner sa ndeyjoor mhm. nga continuer mhm. soo continuer tuuti rek da gis ministre métallique bi foofu sa ndeyjoor moo kër gi ñoo jàkkaarloo 141 mhm. la kër gi maa ngi dëkk ci deuxième bi d'accord numéro téléphone bi di 77 441 16 17 77 441 16 17 wala nga def 70 841 61 90 nga mën a jot koo xamante ni dana la tegtal fi nga xamante ni euh, fa la Cheikh Mouhamadou Khali Diop nekk euh, euh, Cheikh bi wàllu résultat yi. Mhm. ci yan nga ci ëppee résultat. parce que dégg nañu ne. Mhm. waxuma waxuma nag dang nga koy faj. Mhm. dama ne dégg nañu ne. da ngay faj rab. da ngay faj wàllu ku am doom tëlee am doom. dangay ngay faj wàllu ubbeeku mhm. wàllu ubbeeku boobu ak yooyu nag jaaroon nga fi am na ci loo xamante ni joxe woon nga ko fi ne mhm. moom nga koy liggéey bu ñu jëlee mbokk mi ci ligne bi ba noppi nga xam ma yan résultat nga ci ëppalee mbokk allo salaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullah Soxna Mbaye na nga def maa ngi sant yàlla mbokk tur bi naka la ak fay wootee non Libreville euh, di wootee Libreville waaye doom Mbaye maa ngi lay ziar bu baax a baax waaw man émission bi laa ci bëggoon participer tuuti quoi. yaa ngi en direct Amadou. waaw man gis naa mbokk yi lay invité yëpp. Mhm. waa man daal samay gis-gis. ça fait. man de samay gis-gis vraiment bëgguma yéen ñii de passé na télévision quoi ndax vraiment du yoon quoi li ñuy wax yëpp du dëgg du dëgg. Mhm. d' accord nee na li ngeen def yëpp du dëgg. waaw moom laay wax léegi rek. sa mhm. que xëy na mën na daje koo xamante ne nii mën na comme li ma la wax noonu rek. Mhm. mais dama ne la ñaan yàlla. Mhm. du fi jóg ba àdduna tukki. te itamit. ñi am ijaaba di ñaan muy am. duñ fi jóg. ñi am barke. ñi nga xam ne dañuy ñaan seen mbir yàlla def ci barke loolu du fi jóg. ndax su fekkoon ne tey. Ah, maanaam ñii ma defal ñëpp amuñu résultat. Mhm. wala li ñuy wax du dëgg. Mhm. ni konoon ku dem doo del dellusiwaat. Mhm. mais kenn xamul ñaata nit ñoo may booleeg ak ay nit. ñoo xam ne musuma gis ci rajo musuma gis ci télé. musuma dëgg ci rajo musuma gis ci télé. te dañ may booleeg ak ay nit. ci wàllu jaaro bi ñuy defar. ak wàllu ndomb bi ñuy defar. ak wàllu fajum imorit. ak wàllu fajum siti. ak wàllu fajum ngóor gu tële. ak wàllu ubbeeku. ak wàllu dindi cat ak dindi rab yooyu yëpp. dañ koy def te alhamdulilah ñu ngi ci am résultat jamono bu nekk. te boobu ba léegi même place bi nga nekk nga nekkoon. man du ma du ne déggoo li ma la wax su ma amoon mhm. gi néew ma dama sama sama kër ndax est-ce que dina lay faral di daal nga ñaanal nit mu defoon ci yow xaalis bu bari euh, gisul la nga ko ñaanal mu ñëw nga delloowaat ko xaalisam. loolu de su fekkee mës na am. Mm. ah seetlu ma ko. dooy faral di delloo nit xaalisam. déedéet maanaam danga dul ñu ñëw sax di ma wax waxi waxi delloo xaalis. moo tax ma ne la yàlla mu ngi maye ba léegi te loolu mu ngi am man dama yàgg di ñaan muy am ñu jugee Dakar di ma fekk di ma fekk Ndofane mhm. di dawal seen i oto di ma fekk Ndofane mhm. may ñaanal nit ñi dem di mu boole keneen mhm. dégg nga ñi may déglu tax xam ma xam nañ li may wax nii booba ñëwaguma dakaar xamaguma rajo xamaguma tele Mm-hmm. ñii may ñaanal ñuy am résultat ñoo may sant il faut nga dem ci rajo yi dem ci tele yi. Mm-hmm. nit ñi bokkuñu yàlla bindul yemale. d'accord voilà d'accord donc euh, mu ngi noonu buntu baa ngi noonu yéen a moom émission bi ah lu ci lu ci ñëw rek dañ koy jàllale. parce que noonu la télévision du demee gis-gis yi du ñu bokk euh, ku nekk da nga indi sa xalaat dañ la koy nangul bu baax a baax a baax mm-hmm. euh, buntu baa ngi noonu ngeen mën ci jaar ci 88 628 69 69 00 221 33 841 09 31 wàllu ñàkkum am doom est-ce que yaa ngi ciy am ay résultats. ñu am résultat am na ñu bari yàlla moo moo mooy sama seede. Mm-hmm. te ku nekk yaay laloo sa sa sa sa sa ndeyjoor. Mm-hmm. am na ñu bari ñoo xam ne dañuy indi seen i doom indil ma ko. Mhm. ne may kii bu amee bu nekkee ci àddina yàlla ak yow la. Mhm. te àddina mënul ñàkk yàlla ak yow. Mhm. àddina mënul ñàkk yàlla ak yow. yàlla jiitu lépp. yàlla yàlla mooy lépp. mais lu muy dogal am na fu mu koy jaarale. bu fekkee ne bëgg na yëkkati nit ki. dina jaarale ci moom safaan. xaw ma euh, lu baax. pour yëkkatee ci dara jaam. dégg nga. moo tax lu yàlla yàlla ñàkk ci dara. bu fekkee ne mën na wàccee nit ki wala mu sib ko wala mu ñaawal ci mën na jaarale ci moom safaan mhm. ñu taqal ci nit ki toroxale ko ci fekk na nag loolu yàlla moo ko jaarale ci moom mais yàlla moo ko dogal mhm. mën na bëgg a yëkkati nit ki jaarale ci moom lu baax lu yëwén mhm. ñun nag alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax lu ci bari yàlla ñuy jaarale ci ñun teraanga mu ngi yëkkate ci ñun ay suñu nit ñaa ngi ñëw di ñu sant di ñu gërëm ndax lan résultat bi ñuy am suñu diggante ak ñoom ku ko weddi yàlla la ko weddi rek na ñëw ku ko weddi rek na ñëw waaw du bàkku nag ndax waa yàlla moo wax ci alxuraan waa aw amaa bi ñu tara bëgg fa xadis mhm. su ma la defee lay xéewal na nga ko waxtaanee pour sant ma mhm. dégg nga ñun ay santaakoon lañ dañuy sant yàlla fu ñu toll mhm. mu neex mu naqadi bokkuñ ci ñi nga xam ne bu neexee ñu sant bu naqadee ñu ñu weddi ñu déedéet ñun bu neexee dañuy sant bu naqadee dañuy sant d'accord ndax xam nañ ñu sant kan la voilà looloo tax nag ñun alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ci xam-xam bi ñu may wàllu hémorroïde moom hémorroïde moom ñaata temps ngeen koy faj mën nañ ko faj un mois wala un mois dix jours maximum ñu traité la ko su mhm. fekkee ne lekk yi muy bañ bàyyi nga ko mhm. waaw tax hémorroïde day waral nit ki di di di ballonné mhm. boo gisee signe boobu rek xamal ne hémorroïde nga yor hémorroïde dana waral nit ki bu demee toilette di génnee dret mën na waral nga manqué appétit doo mën a lekk da ngay xiif demee doo mën a lekk hémorroïde mën na waral sa yaram di diis mën na waral am na bu nëbbu am na bu feeñ mën na waral it boo boo boo boo kiiyee sa biir bi di génnee di di yuuxu di yuuxu di ah, balal dégg nga kooku boo gisee si ñooyu rek xamal ne nag euh, hémorroïde dal na la d'accord waaw boo ñëwee insha allahu taala dañ la ko traité ba mu dëñ waaw mhm. ah, am nañ ci garab yu nga topp traitement bi bañ na rek naan naa ñaar waaw euh, dama xaw a jàpp dama am xew ñu mel ni mbaye bu soobee yàlla bi semaine prochaine naa fa dem la nga traité woon yëpp euh, yàqu delluwaat à zéro lool tam du leen dimbali traitement bi te nga moytu lekk yi li nga xam ne moom la lay aaye moom la lay aaye waaw lekk wa wàllu ñàkk am doom wàllu ñàkk am doom mhm. euh, bu fekkente ni jigéen ji mun ta am doom mhm. bu fekkente ni da ngeen koy traité da ngeen koy woo moom ak jëkkëram wala waaw bu fekkee ne moom mënul am doom dañ koy wax ne ko na dem ci hôpital yi ñu xool ko ci seetuwaay yi hôpital yi di seetee mhm. bu fekkee ne amul fibrom wala ay kyste ak yooyu mhm. bu ko defee amul rab bu koy ñu seet ko ñun suñu bu fekkee ne amul rab bu koy yàqal mhm. incha allah am na loo xam ne suñ ko ko joxee mu naan ko lii mu ëw ko takk ko ci soutien mu mu ko féetee ginnaaw ci kàttanu yàlla dana boo doomam te loolu kenn xamul ñaata nit lañ ko defal kooku ñu ko defal li ngeen koy jox da ngeen bu ngeen ko seetee ci wàllu rab ba pare mu dem hôpital ñu xool gisuñu dara bu boobaa da ngeen koy defal loo xamante ne daf koy naan bu ko naanee ak lu muy takk ci soutien ci ginnaaw mu féetee mhm. biir ay fibrom wala kyste mhm. am na ñoo xam ne rab moo leen jàpp ba lu ñu mu yàqu ko mhm. kooku moom boo ñëwee incha allah ba ëmb bi am bu amee allah ci kattanu yàlla ci kattanu yàlla la mm-hmm. bu ëmb bi amee incha allah danaa fexe ba jox la loo xam ne moo lay sàmmal ëmb bi ba tuur ëmb d'accord dafa voilà dafa am mbokk mu ma mës a interpellé wax ma ne ma mm-hmm. man damay ëmb naa lu tolloog juróom-ñaari yoon mm-hmm. mais su ma ambee ba am yaakaar rek damay def avortement mhm. euh, léeg-léeg dem naa hôpital seet nañu xamuñu lan la mhm. ma bëgg nga laajal ma nit ñi lan moo koy waral mhm. loolu rab daf koy def wala rab da koy def comme kyste bii ma la wala wala wala wala wala kii wala wala fibrom waaw parce que fi place kii ndox mi war a tëdd foofu lay nekk waaw bu ñëwee bu fekkee kyste bi kii bi gañe na ko da koy tuuraat d'accord waaw rab bi it indi loolu noonu mën na dem ba nga xam ne loo ëmb rek boo géntee say say say góor loolu rab da koy def d'accord nit kii mën nañ koo liggéey mhm. jigéen mën nañ ko liggéey ba lu mu ëmb mu yàqu day gis régal rek waaw am na ku ma ci interpellé démb xam naa mi ngi toog di ma setaan euh, ne ma defam benn jarbaatam boo xam ne xale la mhm. euh, mi ngi toll ci 17 ans 18 ans su ma juumul mais dafay gis mbaax du arrêté du mhm. arrêté du arrêté mu ne ma ndax amoo koo xamante ne xam nga ko mu mën ma jàppale ci loolu ma ne ko dinaa ko laajte est-ce que yooyu yooyu am ngeen ci ay kii loolu man alhamdulilah faj naa ci fa ma dëkk ca Ndofaan. Mm. am na koo xam ne bu ma déggee. Mm. dana xam loolu. Mm-hmm. faj naa ci loolu ca Ndofaan faj naa ci loolu fii ma dëkk ci fii ma nekk ci Dakar. Mm-hmm. parce que waxtaan la ko nit mën nañ ko def loolu parce que am na koo xam ne ñaar la amoon ñaari jabar. Mm-hmm. bu demee ci aawa bi du commencé di muy gis génne deret rek. aawa bi di génne deret rek bu demee ci ñaareel bi. du gis dara. te loolu ci kat yàlla ñun ñoo ko faj. ñun ñoo ko faj moo tax képp ku weddi xam-xam rek. da ngaa daje wut ak xam-xam. d'accord ñu jël kii ci ligne bi mbokk alo ma fàttali kii bi Skype. alo xaaral après ñu joxe. Skype allo soxna Baye na def. ñu ngi sant yàlla bu baax mbokk tur bi naka la ko fay wootee. ah tur bi nag dama koy leb. ñu lebal naa la ko réew. ay ca yow la ñuy déglu. waaw man daa man damay rafetlu bu baax euh, suñu sëriñ si si si nga invité à chaque fois ngeen baax ma ci wolof bi nag leerul. saan ñu ngi lay dégg bu baax. Oh, waaw man moom maa ngi kontaan man bëgg naa ci ñi leen gëm. Mhm. waaye li ci des mooy rek nañ ko rafetal. Mhm. Euh, parce que koo gis ci ñoom. Mhm. am na ci am na ci ñu ci gën a bëri bokk. ay mhm. tarixa ñi ci gën a bari ñu weeru ñi ci gën a bëri ci ñoom bokk nañ ci ay tarixa ah, c'est-à-dire que ay. ay tarixa ñu weeru ñu weeru ci ay Baye Niass ñu weeru ci ay Cheikh Tidiane. Euh, nañ seen i sëriñ. seen sëriñ dañ doon xeex njabar. Mhm. kon nag ñoom tam nañu moytu di xeex toujours njabar mhm. ñu ñëw si ñoom ne dama bëgg nga tasal ma sëy bi wala nga réyal ma kii ñu waar ko pour kooku dellu ci yàlla d'accord waaw man gis naa si ñoom ñu si gën a bëri vraiment ñu ngi koy xeex ñu koy def te maa ngi moom maa ngi leen di maa maa ngi waaw maa leen di bu baax maa ngi rafetlu seen liggéey dëgg la parce que ñaan dafa am ci des mooy ñu si gën a bëri aussi ñu ngi liggéey di am xaalis mhm. waaye man bu ma gis ñu si gën a bëri aussi ñuy investir ñuy def ay investissement. investissement pour ñeneen ñi créer voilà. voilà pour ñeneen ñi ak comme ay taalibe wala ay daara wala ñuy jàppale ñeneen ñi. Eh. damay gis rek ñu ci gën a bari mooy. Mhm. ay ñaankat ay géwél wala ñu mel noonu ñoo leen di entouré. waay waay waay waay sa voilà man lool man de lool laa seetlu man. sa participation si ñoom ñu am xaalis nag. sa dañoo laa biir moo tax. dañoo laaj dañoo laaj biir. ndeysaan dañoo laaj biir mais nañu xalaat aussi. pour nañu def ba investir. d' accord ci am xaalis man wóor na ma. sa participation bu nekk woon dëgg ñoom am dara. man mm-hmm. la. Mm-hmm. ñaan amul kooku dafa xamul. asalaamaaleykum mm-hmm. wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah sa participation am na solo torop torop torop. Euh, ndax euh, lépp rek soxna mbay bëgg ko xam laajte ko du sotti donc ñiy dugg euh, di ma ci jàppale maa ngi leen di gërëm bu baax ku ci mel ni mbokk moom woote bitim réew. Euh, dégg nga li mu wax ñu nekk ci biir réew jox ki Skype bi xam moom mu yomb waaw jox leen Skype bi waaw Diop xaali 2 ngay xaali 2 waaw collé bi ni ñu koy bindee K H A L L Y waaw Diop D I O P waaw xaali bi K H K H A A L Y waaw xaali 2 Diop xaali 2 collé waaw nga mën ko jot ci Skype bi mu jot la mhm. d'accord foofu dafay yomb ci yoon euh, ci yow euh, numéro bii nga joxe moom mooy Viber bi wala numéro bi Viber bi kii la waaw boobu boo ma woowee ci. moo yi dafay bari xam naa mhm. du ñàkk ku woote ci numéro bi nga mën ko jox. Mhm. Euh, li nga xamante ni moom mooy Skype bi. 77 441. 16 17 wala nga def 70. 841 61 90 wala nga def Diop xaali collé de. Euh, muy Skype bi wala nga waaxu ba fi nga xamante ni mooy Cité Fadia mhm. boo demee borom yoonu golf bi boo demee borom Brioche Dorée bi nga jàdd ki sa droite mhm. dem ba ci menuisier métallique bi mhm. euh, mook salon bi ñoo jàkkaarloo yaa ngi deuxième cent quarante et un mbokk ngi ci ligne bi ñu jëlaat ko allo allo salaam ah, soxna Mbayang waaw sëñ bi da ngay wàññi télévision bi ñu wax rapidement parce que temps baa ngi dem mbaa ñu ngi sant yàlla alhamdulilah ñu ngi fii ñu ngi ci jàmm alhamdulilah ñu la sant ñu ngi la sant bu amin yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp alo wala la dagg na ndeysaan ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax eh, ci ñaan yi am na ci ñoo xamante ni day Euh, euh, xam nañ ne waajal sa bopp am na. Euh, ñàkk sa bopp it am na. man dama yaakaaroon ne àddina weesu na fu nit di weddee. ne ñaan am na ne am mais nag mais mais mais blâmé ma leen ñoom. non non doo leen xam nga lu tax blâmé ma leen. Mm-hmm. dafa bari ci yéen. Mm-hmm. ñoo xamante ne dañ ci rax. Mm-hmm. waxuma ne Cheikh Mouhamadou Xaali moo mën. waxuma ne keneen moo mënul. mais bari na ci ñoo xamante ni tey xam nañ ne ñaan gi dox na. jóg nañu mbubboo ko. man gis naa koo xamante ni euh, dafay ñëw ne day ñaan. mais am na keneen ku nekk ca bërëb ba muy ñaanee kooku moo yor wàllu ñaan gi moom xamul ci lu ñuy ñaanee dara dara dara dara donc yooyu yëpp daf ci nekk ci biir moo tax du ma blâmer ñi nga xamante ni dañu wax ne dañu weddi ñaan parce que boo demee dañ ci dund ba dee dañ leen a nax ba ñu bëgg a dee mm-hmm. dajewuñu ak kenn koo xamante ni xëy na peut-être xaw nañu gis sax changement ci li nga xamante ni mooy Sénégal donc ñu dellu si waat tuuti ci jàngoro yi parce que temps baa ngi bëgg a dem wallu am doom ak yooyu wax nga ci lu am solo loo xamante ni du ñàkk ñi koy seetaan euh, dinañ ko gis euh, tey luñ ci am dinañ ma wax parce que man nit ñi dañ may woo sëriñ diw lii la ma def sëriñ diw lii la ma def vraiment jox naa ko sama xaalis ak nangam ak nangam yooyu dama koy gis bu ma ko gisee it xëy na mën na feeraar wala mën naa waxtaan ak moom ba mu delloowaat ko xaalisam du ma la ne dal na ma ci yow du ma la ne daluma ci yow mais daal alhamdulilahi rabil alamin sant yàlla parce que bugguma yëkkati kenn ndax dama fi toog pour ñëpp mais euh, hémorroïde waxtaan nañ ci wax ci wàllu ñàkk am doom rab daf koy waral ak yooyu euh, ñu ñëw nag ci li nga xamante ni mooy wàllu jaaro yi jaaro bi ak ndomba gi Cheikh Mouhamadou Xaali ba léegi jaaro bek ak ndomba gi mi ngi ciy mi mi ngi koy def ba léegi wala daf ko changé leneen léegi te tey la gën a wér tey la gën a wér la gën a tey la gën a jëriñ tey la ko nit ñi gën a utsi jaaro bi naa la man dama ko damaa gis njëriñam takk ko di gis ci sama bopp ak ak ndollal yaa ngi dégg képp man xaw ma jaaro bi la du ma wax jaaro bi la xaw ma balaa ñu ne mbay moo dëggaloon jaaro bi waaye daal si xam naa ne Cheikh Mouhamadou Xaali mi ma xamoon ak bii bokkul waaw sant yàlla alhamdulilah dama ne la ala <laughs> maa ngi sant yàlla ci lu mën a xew nag rawatina nag jamono jii <laughs> ndeysaan waaw ndax yàlla dafa dafa ay sabab mhm. jaara bi jaaro bi lan lañ koy defaree alxuraan la. jaara bi ah, la daal. secret waaw secret la la wala jat la wala lan la alxuraan la waaw. am na ay secret ci biir alxuraan sooy tudd jaaro bi rek da ngay reetaan moom waaw parce que damaa xam lu muy jëriñ seen jaaro yi bari na lool léegi damaa xam li muy mbokk mbokk jaaro yi dafa bari léegi de allo allo salaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullah bañ na ngeen maa ngi sant yàlla bu baax mbokk tur bi naka la fooy wootee man maa ngi woote Italie. Italie. waaw. waaw yow rek la waaw dëgg sax benn waaye bu doon wax naan ndax doomu aadama mun na ñaanal doomu aadama. waaw. mu bëggoon tool di tuuti. ayca tuuti rek. Mhm. it bu lu ko jot. Mhm. bu naanee garab yi du dem ci médecin. nit ki lu ko jot bu naa naanee garab dafa dem ci médecin. non bu naanee garab amul tane day siti médecin. Mhm. médecin lu mën a mën a faj. waaw bu feebar day siti médecin mu faj ko. Mhm. am na exemple bu mu jox sànq si kilifa gu nekkoon ci Kaolack. waaw ne dafa daal sant mu di ko ñaanal. Mhm. pour confirmer ko ne nag doomu aadama war na mën a ñaanal doomu aadama. ku la ëpp ma xam si yàlla rek war na la mën a ñaanal. dëgg la. wala la réseau bi mi ngi am wax lu am solo déplacé wul tuuti sama sëriñ. bi dégguma la bu baax da ngay déplacé wu tuuti réseau bi oh là dagg na mais mbokk moom euh, dafa am lu wér lu muy wax bëgg nañu ko jot euh, bëgg dégganteeg moom euh, su ko defee mu mën yegale loolu wala bu ko ko temps bi mayee mu mën a duggaat indi li nga xamante ni moom la bëgg a wax des fois sax nga gis ko ci ndëpp. Mhm. da ngay gis ko feebar ñu yóbbu France indi yóbbu Amérique indi. Ah, yóbbu yóbbu hmm. euh, euh, fu ne ñu yóbbu fa. Hmm. moom fam fu képp koo ñu ñu ñu woo ñu woo Binta Ndiir. Hmm. mu ñëw ak ay bagages sama ki kaakaam ma koy nuyu bu baax a baax soxna Binta Ndiir. nekk fële ci diwaanu Yoff mu am ak moom ñetti fan wala juróom-ñaari fan rek nga gis ko mu gàdduwaat saagam ndànk dem di liggéey liggéeyam yàlla ku nekk ak la la yàlla la may. Euh, am na loo xamante ni bëgg mën naa koo am ci mu Cheikh Mouhamadou Xaali ma ñëw wut ko ci moom parce que moom la ko yàlla may Cheikh Mouhamadou Xaali bëgg na émission jaar na ci soxna Mbayang parce que émission la ko yàlla may donc euh, du ñu weddi dara du ñu dëggal dara waaye daal euh, may yàlla daal moo xool nu mu koy defee ak nu mu ko soobee ak kan la ko war a jox mu di ko joxal boppam waaw doomu aadama waaw nga am loo xam ne mm. loolu yow moom nga gëm mm-hmm. te li nga gëm nag te fekk mu tombeek li yàlla bëgg na nañ ko gëm mm-hmm. Mm-hmm. dégg nga kon faw nit ki dana am lu mu bëgg lu mu lu muy gëm ak lu muy weddi te ñun lépp loo xam ne ñu ngi koy wax dafa dëppook alxuraan ak sunna kon képp koo xam ne yaa ngi uh, aju ci cadre jullit munoo weddi ne nit ki war na ñaanlu mbokk dafa wax sànq lu am solo. Mhm. muy da ngeen di ñaan am ay référence mhm. ñii waa kër Serigne Touba lañ ñii waa kër El Hadj Malick lañu. Mhm. Euh, ñii waa kër Baye Niass lañu. Euh, nge pour ngeen di waar nit ñi ci njabar parce que. bari na ci loo xamante ni da ngeen koy def te sëriñ koy defal nit. maanaam soxna Mbaye ak ma nga ca tele ba yàgg na fa. te place bi mu toog soxla naa ko. day jëtil ma ko mi ngi sëy bërëb sàngam euh, moo fa jiitu. bëgg na man ñëw naa fekk si naa ko fi naa ko jëlee est-ce que yooyu di ngeen ciy waar nit ñi bu ñu jëlee mbokk mi ci ligne bi ba noppi mais bëgg naa ñu wax ma temps fu mu toll parce que actuellement yoruma montre nii dara mbokk allo voilà dagg na est-ce que ngeen ciy waar nit ñi ci yooyu wala Cheikh Mouhamadou Khalid dina ñëw rek ñu nit yëkkati un million jox ko pour mu yàqal ko nit mu nangu ko non non fekkee ne yow yàlla loolu doo ko def. mais bu ngeen toogee fi da ngeen koy weddi ah parce que télévision la. waaw yàlla moom moo xam nga nit ñi nit ñi bokkuñu. Mhm. parce que wax ci sa bopp yombul. yombul waaw mais yàlla mi xam-xam na. Mhm. ñun lépp loo xam ne neexut yàlla loolu dañ koy daw bu ñu xëyee suba ba ngoon. ñu jël kii ñu dellu si waat ci ndomba ki allo. waaw sama sëriñ. waaw maa leen nuyu naan léegi maa ngi leen nuyu bi daal léegi jox ma numéro sëriñ bi. numéro bi la 417. 441 16 17. 441 numéro yaa ngi noonu suuf écran bi mën nga coupé te jël ko. 16 17. voilà. ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax defe naa cinq minutes moo des suma juumulee wala wala dix minutes la ah dix nga wax d' bu ngeen ma tegaloon fii montre bu boobaa duma ma laajte heure donc dese nañu 10 minutes mën nañ ñëw ba tey ci wàllu ñaan yi ndomba gi surtout mhm. ndomba gi moom moom lan moo ko taxoon a jóg nga fàttali ñu ko waaw ndomba gi mhm. dama koy defaral jaami yàlla yi mhm. dama wax ne képp koo xam ne takk nga ko lii di rab maanaam li ñuy wax jinne ak ak seytaane yàlla dana la ci musal te fépp foo mën a dem ci àddina da nga delsiwaat ci jàmm yàlla dégg nga loolu mag ñi ñoo ko daan defaral nit ñi daan dem euh, guerre mhm. wala ñi daan sanc dëkk mhm. wala ñi daan dem Makka mhm. xam ne jamono Makka dañ daan dox di dem léegi képp fu ñu mën a dem danañ del siwaat dañ daan dox di dem di jànkonteeg lu lu nekk ci yoon bi d'accord fu ñu mën a dem danañ del siwaat ak ak seen aj waññeekuwaat seen ko takkee fépp foo dem ci àddina da nga del siwaat incha allah képp ku la yéene lu bon da ngay gis ne moom muy gis yaa ngi avancé te du mën ci yow dara képp koo xam ne takk na ko doo dee ci ndox wala nga dee ci safara mhm. wala nga toog nii tabax mabbu ci sa kaw mhm. fépp fu xay di am da ngay dem ay wa doog am wala da nga koy takk toujours takk toujours rek boo demee ba am am jours ci yow bu la neexee léeg-léeg nga di ko tëbal waaw bu la neexee d' accord mais léeg-léeg nit ñi dañuy bañ a takk ndomba mhm. parce que wax dëgg yàlla ndomba goo xamante ni tol na ni kii non euh, ndomba bi moom bu tuuti lay nekk bu sew lay nekk du la déranger ci dara dégg nga d' accord wala bu la neexee mën nañ la ko defal nga kii ko lem ko du ko def sa pos d'accord nga lem ko ëw ko noonu lem ko ëw ko noonu di ko def sa poche su la neexee itam nga bañ ko def ndomba mais nga ëw ko boole ko ci say gàllaaj ndomba gi moo ci gën bu la neexee bu la neexee mais fu nekk rek na ànd ak yow képp ku ko takk doo dee ci accident mhm. te itamit toujours da ngay gis avancement ci sa bopp te kenn du ko du ci mën dara mhm. te boo ko takkee dama ne la maanaam képp ku la nar a yéene lu bon mhm. moom moo cee nekk waaye doo ci nekk mukk lu leen yéene daf koy delloo ci maanaam retour à l'envoyeur lay doon te am am a nekk nit ñi dañ lay utsi d' accord bayre encore daf ci ànd. waaw dégg nga. d' accord lim nañ ci ba man fukki yëf yi ñaar yoo xam ne boo ko takkee yàlla dana la ci dana la ci gi démb woon. ndomba gi ndomba cosaan la. Mm. dama ne la su ma la loon papier yi nga xam ne moom la sama baay daan liggéeyee. Mm. ci sama maam la ko donnee. Mm-hmm. sama maam donne ko ci maamam. Mm-hmm. papier yi ba léegi ma nga fa. mais est-ce que sellal geeg ragal yàlla gi sa maam maam nekkee woon yaa ngi ko nekkee ba léegi. alhamdulilah man alhamdulilah du ma tagg sama bopp. Mm-hmm. mais képp koo xam ne ñëw na ci man. Mm. wala nga xool ma wala nga jëflante ma wala nga nekk ak man. da nga xam ndax sell naa wala sellu ma. dégg nga dëgg la loolu loolu loolu dëgg la jaaro bi jaaro jaaro beeg ndomba gi cher waaw jaaro bi tamit moom day indi maanaam dañ xëcc day xëcc ñii commerce wala ñi nga xam ne ñu ngi liggéey bëgg nit ñi ut si leen mhm. wala nga nekk nit mu di la yéene ba tey lu bon mhm. daf ko koy delloo te am am bi dalay yomb toujours mhm. lépp loo xamante ne nii yaa ngi koy def toujours nit ñi da ngay gis ne yaa ngi yokk mais jaaru bi ubbikaay la waaw te sa wax dañ koy gëm te nit ñi dañ lay bëgg te da lay ubbi te da lay aar waaw jaaru yi nag may wax ne bëri na mais bokkut bëri na léegi jaaru yi bëri na jaaru yi bëri na mais bokkut nga ñi nga xam ne jot nañoo jaar ci ñun hmm. alhamdulilah ñu ci bari dañuy yebal seen i sœur wala seen i seen i frère ne leen demal ci diw sàngam moodu ku jëloon borom jaaro bi ku jëloon jaaro bi te gisoo ci résultat gisoo ci yokkute wala dara woo ma nga wax ma ko su ko defee dinaa ko waxaat fii bu ñu toogaatee fii ma ne la Cheikh Mouhamadou Xaali diw nee na hmm. jëloon na jaaro bi mais daal boobaak léegi gisu ci dara hmm. incha allahu taala yàlla baax na man nag man amaguma ci waaye waaye man daal nit ñi laa fi toogal daal nit ñi daal laa fi toogal dëgg la euh, d'accord hmm. donc euh, Cheikh Mouhamadou Khalil yooyu muy fajee noonu ay hémorroïdes ak ay rabak ay wàllu ñàkkoom am doom ak yooyu alxuraan la ciy boole ak euh, sunguf ak ren wala alxuraan moo ëpp ci li muy def dañuy faj ci côté sunguf hmm. hépatique B bi dañ koy faj te dafa të ñu bari mais dafa am phase bu muy toll boo xam ne du ngeen ci mën dara nag man de képp ku ma ko indil naa la faj. bu demee ba phase terminale ku ko weddi rek ma ko man. bu ñu demee ba phase terminal dama ne la képp ku weddi am hépatique B boo ko weddi indil ma ko. ba dem ba biir bi ne mën a mën a yàlla mayee. li taxawal nag rek li yàlla mayee. waaw loolu ci na a tuuti. li yàlla mayee loolu ci tuuti parce que jebet bii nii gars yi dañuy wax ne mënuñ ko faj. te man nit ñëw na ci man ay yooni yoon ñëw na ma yow yaa ma faj. mu delluwaat di lekkat suukar di lekk lu ko neex dama ne la yàlla may dégg kay ma yàlla laa gën a ragal ci nit ñi nit ñëw na ci man ne ma yaa ma fajal sama jabet bi indi ay doomam indi njabootam ne ma kii moo ma faj gannaaw yàlla bu ma tamee di lekk lu ma neex li ma aayoo nit kii moo ko tax tam meer boobu ba léegi mu fi boole na kenn xamul ay hépatite am na phase boo xam ne da nga toll tuba euh, docteur daf lay wax ne la mënatul ne mënatoo dox bu leen dalee bu la dalee dañ naan la damal toog rek xaar dee yaa ngi gis say bët mu ngi commencé di coloré wu yaa ngi am ballonnement de ventre vraiment nga toog xam ni kii ñu ne la kii delloo ko ci kër ga lu mu bëgg nga di ko jox ba yàlla ñëw. loolu la ñuy wax ñoom kooku stade bu fa tolloo da nga koy da da ngeen ciy def ay ñaan. wérante xuuxaan moom tekkil tubéy rek. <laughs> yaa ngi dégg. gaa la yàlla. sama am loo xam ne man am na koo xam ne tëdd na bañ bañ bañ bañ tàgge ko. wallahi alasim tëdd na bañ tàgge ko nga xam ne dara desu li moom lu ay mbokkam kii ma wax waa ji ne ko fexeel ma ba yóbbul ma lii fexeel ba mu dugg ci gémmiñ gi rek wallahi alasim du dee ba mu demee fexeel ba mu dugg ci gémmiñ gi kooku yàlla lu maye lu nekk sëñ bi ah, soxna si yàlla maye na lu nekk sama numéro 77 253 20 61. képp ku ma ko euh, dikkee rek. Euh, bu ñu ma ci woo léegi nag parce que téléphone bi dama ko fàtte kër ga 77 251. 253 20 61 mooy sama numéro euh, loolu moom di dinaa ko gëstu ba mu leer parce que du leen teg fii rek euh, ngeen wax ba pare après xaalis yi dem noonu te nit ñi du ñu mën a jot ci man donc 77 253 20 61 mooy sama numéro man waaye képp koo xamante ni bëgg nga jox euh, Cheikh Mouhamadou Khali Diop woo ko ci 77 441 16 17 77 441 16 17 wala nga def 70 841 61 90 Euh, wala nga waaxu ba fi nga xamante ni mooy faja ci brioche dorée bi nga jàdd boo demee ba ca menuisier métallique ba mook euh, salon bi ñoo jàkkaarloo ci kaw salon bi la dëkk 141 euh, deuxième étage. gis nga lii di imorit mm. lii di góor gu tële. Mm. wala nga néew kattan. Mm. walla nga am siti. wala nga am jabet wala tension wala prostate. wala fibrom wala asthme wala kyste. dégg nga yii nii moom incha allahu taala wala fekkee nag côté euh, alquran bi la ci wàllu ñaan bi mm. bu dee rab la wala ñu boole ay nit mm-hmm. wala dindi ay liggéey wala fal ku la mm-hmm. dégg nga wala nga bëgg ku ku am place nga bëgg mu sax ca ba mm-hmm. wala koo xam ne cet daf la jàpp nga bëgg mu dindi ko wala jigéen ju bëgg sëy wala koo xam ne ku ku ku bëgg ay këyit la te nekk bitim réew wala nga nekk fii nii di topp topp pour wàllu tukki dégg nga wala nga bëgg të nga xam ne da ngay të nii ñëpp mhm. lépp rab ak nit ginne ginne yëpp da koy të mhm. waaw wala koo xam ne da ngaa bëgg am doom mhm. dégg nga koo xam ne dafa euh, da ngaa bëgg jaaro bi mhm. wala ndombo bi mhm. yii moom ak yeneen yi nga xam ne jaaro beeg ndombo gi moom sa faveur la waaw waaye damay faral di dégg nit ñi di wax naan euh, Iran Ndaw oustaz Iran Ndaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax ndeysaan oustaz su bàyyi ma jéen boobule di sama oustaz di ku baax muy wax ne yàlla naa sax fii yàlla naa sax 2 xam nga may ñaan toujours sax 2 te fekk boobu yàllaa ngi ma euh, defal defal defal benn bureau ci wetu ministère salaire bi ëpp xam xam nga tam loolu léeg-léeg ñi dañ koy kii a ñàkk da ngay ñaan sax fii te sa wërsëg di la fi fekk si. Mhm. wala nga ñaan yàlla ubbi la. nga gën a yokku. ñaanal ñaanal yàlla ubbeeku rek. boo ko ubbee boo ubbeekoo foo mën a nekk sa wërsëg dana la fekk. Cheikh Mouhamadou Khaly Diop tàggul parce que temps bi jeex na daanaka euh, su ko defee rek euh, ñu daal di joxante rendez-vous beneen yoon euh, ci beneen thème boo xamante ni dañ koy fas yéene waxtaane. incha allah ñu ngi sant yàlla bu baax moom mi nga xam ne moo ñu may ñu tàmbali émission bi nar koy ci alhamdulilahi dégg ñu ngi santaat suñu wayjur wu jigéen wa nga xam ne moo nekk ca Ndoufane di ñaanal yàlla di ko ñaanal mu gudd fan ànd ak wér ku la mm-hmm. sopp la mm-hmm. du la tardé benn jamono ñu ngi ñaanal sunu sëriñ yi nga xam ne ñoo nekk Medina Baye comme nañ ko nañ la nuyoo woon ci njëlbeen gi mm-hmm. ñoom lañuy sagoo ñoom ñooy sunu lépp dégg nga ñu ngi ñaanal it mboolem koo xam ne xalifa la te nekk fii ci senegal dégg te wuutu fa sa way jur ku mel ni Seydi Mokhtar sëñ Sidi Mokhtar Mbacke sëñ Sidi Mokhtar ñu koy ñaanal yàlla fa nga xam ne mooy Cheikh si si Al mhm. di xalifa bi nga xam ne mooy Cheikh mhm. mhm. di ñaanal ki nga xam ne mooy imam bu mag moom tamit yàlla yàgg ci jumaa ji di ko jiite ci Medina Baye amiin di ñaanal sama mbokk yi nga xam ne ñu bokk dëkkal fajaay ñëpp sama soxna yi sama awa sama ñaareel ñaanal ñoom di leen sant leen gërëm awa beeg ñaareel bi ñu ngi fajaay ñu ngi fajaa waaw maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu Modou Seck ñi nga xam ne ak ñoom Malick Manel ak ay waajuram ñun ñoo bokk ci liggéey bi ñoo ci jàpp mm-hmm. wax dëgg yàlla di nuyu sama mbokk yi nekk Ndofane ñëpp mm-hmm. sama bàjjen yaag sama nijaay yooyu ñëpp nekk Ndofane <laughs> jërëjëf nuyu bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu ñëpp di gërëm mm-hmm. ñëpp di sant ñëpp di wax wa axiru daxwaana and alhamdulilah nuyu Thierno Amath Ndiaye mi nekk parcelle sama sëriñ la nuyu mboolem sama mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo nekk foofu ñu ngi nuyu ñëpp wa axiru dahwaana an alhamdulilahi rabbil alamin wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Cheikh Mouhamadou Khalid Diop gis ngeen ko numéro mi ñu ngi noonu euh, ci suufu écran bi may remercier bu baax a baax nag ki nga xamante ni mooy soxnaas Manel Diop ndax Malick Manel doom la ci Manel waaye tey sëriñ bu am solo la ko yaayam jox muy soxna maa ngi kontaan ci yow bu baax a baax soxna Umu di la wax ne rek koo bëgg bëgg na la euh, en tout cas rafetlu naa li nga def daal rafetlu teewaayu Malick Manel euh, di wax ne rek numéro yi mu ngi noonu 77 441 16 17 wala nga def 70 841 61 90 wala nga def Diop Khalid ci Skype bi mën ko jot mbokk yi jàmm ak jàmm ba suba ñu ñëw ci thème de la semaine asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu fi amaanillah jaa ngeen jëf